national ba ñuy amal débat d'orientation bi séance bi dana ko dal di dakkal député yu coalition Yewwi Askan Wi di sàkku ñu bàyyi seen naataango yi nga xam ne dañu leen teg loxo niki démb ñoom ñëpp yéeg ci tribune Ahmed Aïdara di député bi njëkk a jël kàddu ginnaaw Mamadou Moustapha Ba di joriñ bi ñu dénk wàllu budget bi dal nay sàkk ñu bàyyi député yi nga xam ne jamono ji ñu nga garde à vue ci sûreté urbaine benn député waruñu ko topp wala ñu koy seet teg ko loxo wala sax di ko jugé ci ay xalaat wala ay vote yoo xam ne daf koo def ci jamono ji nga xam ne liggéeyam lay def dans l'exercice de ses fonctions bi la doxalin bàyyeekoo ci parlementaire yu yeewee askan wi Cheikh Mbacke Bara Dolly naqarlu na ko bu baax maa ngi ci kenn appliqué article 51 heure bii daaw laa wax bi ñuy def bi moom pourtant article 51 mi ngi woon. njiitub assemblée nationale bi bëggoon naa wéyal yile débat. voilà le débat continue Bilali Ba vous avez la parole. waaye nag Ahmed Aïdara ak i ñooñam bàyyiwuñ ko ci benn yoon ndax nag dañoo dal di lompañal lépp luy travaux.